Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor man ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. jërëjëf sëñ Sa. lan nga tudd. Amadou Baye Sow. da nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmm nag yi ndax mën nga ñëw ci liggéey bi ah ngeen ko defee. ah ñun na ma Mauritanie amul fu mu demul daal ngir sëñ Tuuba seex bi am nañ ñaar fukki at man moom. ñaar fukki ñuy ànd ci liggéey bi te gis naa li mu taxawee ci ngir sëñ Tuuba amul lu mu def lu lu nit mun a def rek ci àddina sëñ bi def na lu ko lu sax waaw parce que def ko jaral te mu ci sonn muy jàpp ay taalibe am te ñuy liggéey ngir sëñ Tuuba. sëñ bi dara ñëw ko budul ngir sëñ Tuuba dara loolu ñëw ko fi ñëw. ngeen di liggéey ba am ndam li mel nii résultat bi. Hmm. dañ ko liggéey ngir sëñ bi dañ ko liggéeyale ñu defal ba ba mu kontaan ba mu kontaanee loolu moo tax ñu mën a ànd lu dul degg du yàgg waaw. ndax mën nañu xam xeetu yan xeetu nag ñoo fi nekk fii. xeetu nag ñetti xeet a ngi fi nagu naar ngi fi nagu ñu xam ne ñi ñuy ne googu. ñu ngi fi. Serigne Béthio Thioune suñu yaakaaru àdduna ak àllaaxira yal na yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen baalu àq leen baal àq man la Badou Gueye Touba yëmbal jàkkee ndaween di nekk fii si nagu sëñ Béthio yi di ko taxawu comme ni ñu ko daan taxawoo si bim mu fii ne waaw sëñ Saal nag dafa am benn euh, initiative bu mu taxawee maanaam fi baayam dëggoon tànkam fan la dëgg tànkam nag yi ku xool lii xam ne du lii lii lii du lu liggéey bu ndaw li tegu si boppam si loosam bari na lool waaye wóor nañu ne sëriñ Béthio jugu fi tey jii la ñu gën a xamaat ne sëriñ Béthio jugu fi te lépp ñu ngi dellawaat ak cant gi sëriñ Muntaxa mm-hmm. di ko xam di ko xamal ne ko jant gi lépp mooma di ko sant bu baax a baax a baax fii may waxee gi nag yi ngeen seen lu muy bari bari bari loobu njëkk bi la fi mu toll nii des na yeneen camion yoo xam te ñi ngi ñëw tey rek euh, huit camion wàccee nañu bokkul ak ñun loo biñ fi fekkoon waaw ñi ngi santaat sëriñ bi bu baax a baax di ñaan ak ndolleem moom sëriñ Sall lii nag ak tàmbaleem la waneegul dara te ñëpp xam nañ ne barki sëriñ Saliou Mbacke mate na fi sëriñ sëriñ Béthio nekkoon mate na ko sëkk dinañ def lu fëxe suñu njot màggal gi nañ ko màggal ni ñu mësta màggalee sëñ Béthio jógul si suñu biir tey lañ gën a mhm. yëgaat sëñ Béthio si suñu biir mhm. di ko ñaanal moom Serigne Saliou Thioune ñun ay jaamam ñoo koy ñoo ñoo koy dogg si Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi ndax wóor nañu ne sëñ Béthio tey xolam xolam neex na fa mu tëdd tàlli na tey sagu nañu képp ku ànd ak sëñ te mu doon dëgg si yow nga ànd ak Serigne Saliou Thioune mii barki Serigne Touba sagu nañ